ne señ bi neena won aduna ya rek ci nek rafa njort mba ñaaw njort rafa njort mom day taxa jar ñu faawu ñaaw njortu di waral worook aw ay faawu faawu ndax mu ne boo xasee rafa njort ci dara lu mën di doon mbaa ci jëmm ju mën doon nga rafet ci moom njort lu rafet loolee nga jort ci moom rek moom nga ci gis waaye nag safaan ba it noonu la mbir mu mën doon ak nit ku mën di doon boo xasee ñaaw ci moom jort rek lu ñaaw loolee nga jortoon ci moom rek nga cay gis doo ci gis leneen